asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen waa mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp eh, jiital sëñ Mor di ñaan suñu borom dolli tawfiq bu baax dolli dimbale eh, ñu indi ay leeral tuuti rek ak i ci wàllu garab gu ñu jege lool te bëri fi ci dëkk bi ci réew mi bari na ci gox yu bëri bari mu te it fii ñu toll xëy na yu bëree bëri ngi dalaate yoo xam ne moom moo mën na ci dara ndax mag ñi daanaka yiñ daan faj fajee tawat yu bëree bari néew na mu daan weesu garab gii ñu bëgg wax te mooy ngeer garab gu bëri njëriñ la te jege lool it te yomb ci wet yu bare bare bare euh, bokk na ci ay njëriñam surtout fii ñu toll muy wàllu sibiru jamono bii ñu toll nga xam ne sibiru yi bari na lool lool lool bu dee ku sibiru xobi ngeer ngay am ak xobi rat baxal ko su la boole ci si xaw waaye su fekkee nekkul ko ne tension day wàcc waaw bu fekkee dafa tension dafa wàcc nag na bàyyi si xaw bi ngeer yi ak xobi yi di ko jëfandikoo bu nekk nga ngëb ci ngëbu loxo rek baxal ko di ko jëfandikoo def gënaan kaas suba bëccëg ngoon lu gaaw la lool ci wàllu sibiru sibiru yi ba loolu tax ma sax ñu gën koy indi ndax jamono bi sibiru yu bari waaye xobe ngeer ak xobe rat ak xobe saxaw su dee cotation du lu wàcc te cotation di wàcc nag na bàyyi saxaw bi te jël xobe ngeer yi xobe rat bu dee cotation am du yomb wàcc na ko bàyyi récitation bi yéeg nag moom moo ci gën moo ci boole xobi sexaw yooyu di ko baxal ko di ko naan suba ba ci ngoon baax na lool ci wàllu situ yi baax na lool it bu dee yoo xam ne biiram day daw ba tey biiru tañ am na ko ko fi laajoon ci gannaaw bañ teg ko xobi guy waaye ngeer mi it mën na ko lool ba ci yaram wuy tàng ak ñi war tàngat yooyu yaram tàng bi yëpp suba waaye moom itam baxal ko rek xob yi ngay baxal xobi ngeer kese baxal ko di ko naan suba ak bëccëg ak ngoon yàlla mën na ko defal tawfiix ba bu dee biir buy daw la mën naa saafaro bu dee biiru tàññ la it mën naa saafaro bu dee yaram tàngale it mën naa saafaro ba ci choléra bi sax bu dee ñi nga xam ne tawat yooyu biiru daw yu métti yooyu xobi ngeer yooyu ngay jël boole ko xobi gees baax na ci lool biiru lu buy daw lum garaaw garaaw garaaw soo jëlee xobi ngeer boole ko xobi gees waxal ko di ko naan wala nga jëmb ko ko rek ci saasi mu naan ko ci saasi rek la loolu daal rek yàlla mën na caa def taw fi bañ ba bu dee sax koo xam ne dafa yor asma ñi nga xam ne seen asma yi da leen daane day lool crise yooyu mooy tam xobi ngeer yooyu lay jël boole ko xobi mbal jël xobi ngeer boole ko xobi mbal baxal ko léegi di ko jëfandikoo di ko naan suba bëccëg ngoon saa lekk naan ci kaas mooy yàlla mën na ko defal toof ba coono yooyu nga xamante ne da ko doon am ci wàllu crise asma yooyu su borom mën na ko ci defal tawfiq ba tey ngeer boobu bu fekkee léeg jigéen ju nàmpal la te bëgg meewam bari baax na ci lool moo xam da koy def sunguf su ko da koy def sunguf te am xobi ngeer dajale ci lu bari def ko sunguf su ko def boole ko laax wala ruy fonde bu may def di ko jëfandikoo di ko naan kooku moom lu ko gën ci ku néew doole bariwul ba ci gune yu xiiboon yi xale yi nga xam ne dañoo xiwoon néew doole lool wala soxna yi nga xam ne tey dañoo néew doole wala sax nit ku mën a doon surtout ñu jógee ci tawat néew doole lool sungufam soo soo ko booleeg sungufu dugub ruyu ko di ko jëfandikoo suñu borom mën la ci defal tawfeex bu baax baax ba nga tàggu néew doole ko moo xam néew doole gi même animé la wala li ma wax noonu koo xam ne dafa tawatoon wala sax koo xam ne tey dafa néew doole ci wàllu kàttan yaramam yooyu yëpp suy jëfandikoo sunguf su amee sungufu xobi ngeer boobu wala ko sungufu dugub di ko ri ko jëfandikoo suñ borom mën na ko defal tawfiq ba tey bu dee ñi nga xam ne dañoo am heure et tâche yooyu ci yaram booba xobi ngeer ngay jëriñ dëmb ko am mokk su tey tooy yooyu di ko ci tax di ko diwoo noonu yaram yooyu yëpp di def ay xamat yu mel noonu yëpp da koy dindi ba mu set ba tey bu góom surtout ñi nga xam ne góom ak góom donte sax góomu yi rek mooy góom yi naqaree faj boo jëlee sunguf xob yi def ko sunguf di ko ci suy góom góom yooyu suñu borom ci saa si kon loolu ñi nga xam ne dañoo yor yenn xeeti góom yooyu nga xam ne day tooy rek toujours lay tooy ñoom sungufu ngeer sungufi xobi ngeer ñu ko ci suñ soo ko defee suñu borom mën tax loole day gaaw a saafara kon lu bari njëriñ la yoo xam ne sax lépp kenn mën na ko ba tey bu dee ñi nga xam ne tey dañu am mbuuraan mooy bëñ yooyu di nàcc wala siiñ siiñ moom di nàcc wala bëñ yu métti ba tey moom itam taaxaaru ngeer ngay wut rek baxal ko di ko galaxante ko moom itam loola day dem ba wér xam ne toujours suñ bëñ dafa yomba nàcc gémmiñ yomba nàcc wala sax muy am jafe-jafe ci wàllu bëñ bëñ yi bënn ak yu mel noonu nay am ngeer taaxaar bi rek bu yem su ko dee baxal ko di ko galaxante ko yàlla mën na ko defal taxu ba yooyu yëpp saafara bu dee ñi nga xam ne sax li ñuy tuur ndox dafa bari it noonu xob yi ngay rek di ko naan wala sax suñuy am tuur ndox day am xaw a jafe-jafe amee xob yi ngeer baxal ko moom itam di ko naan kaas suba kaas bëccëg kaas ngoon yàlla mën na la ci defal taw ba loolee saafara ba ci ñi nga xam ne sax dañuy xaw am lu mel ni yooyu ñu tudd noonu ñi daanu ñi daanu noonu wala seen xel yi ñu ne luy xaw a dem ñun ñu suñ amee xobi ngeer moom itam baxal ko di ko jëfandikoo di ko naan moom itam di ci suuru waaw moom baxal di ci naan ci suuru suñu mën na ko defal tawféex ba xeeti jël yooyu daan ko dal yàlla mën na ko saafara ba dootu ko sonal ak nii xob yi amee njëriñ noonu ren bi moo ko moo ko raw boo demee ci ren yi bari na lool lu ñuy jënd bu dee xob yi ak ren bi soo ko baxalee waa moom ci ko ak ren bi ko bu di ko naan baax na lool ci wàllu hémorroïde bii nga xam ne fu nit toll moom la ñu jàmbat soo amee xobi ngeer boole ko takk ab ren ko ci ñaar litre ndox su ñor mu set ba mu set léegi di ko naan par yàlla mën na koo defal tawfe ba yenn coono yi nga xam ne moom la imur bi amoon ci moom yëpp da lu jege loolu bu dee sax ñi nga xam ne tey dañu am tawati suukar suuf nga xam ne dañu am jabet waaw ñooñu it xobi géejaan ngay wut boole ko xobi ngeer baxal ko ku ne nga am ci ngëbu loxo rek boole leen baxal ko ci litre ndox su ko dee boo pare seg di ko naan par kaas saa yoo lekk naan ci kaas moom it soo ko defee mën nga dem ba bàkkaar soosu moom dootul la sonalati ba tey ñi nga xam ne ba tey wàllu siti siti tawati der yeeg yooyu yëpp siti kurébët ak wàllu jargoñ yooyu yëpp bu mu ci mën doon ba tey géejaan ba bu ñu waxoon moom itam xas mi ngi am soo baxal ko wala ko xobi ngeer baxal ko léegi di ko naan waaw day faj wàllu siti day faj wàllu taas ci wàllu yaram der yi day faccit wàllu kurabët muy picc picc yooyu suuf si di nekk ci ruq-ruq yu tooy yooyu yooyu yëpp xobi ngeer yooyu baax na ci loolu ba tey bu dee bronchite ñi nga xam ne lu mel ni asma noonu dal de seen xëtër yi fatt noonu tax benn ñuy sëqët wala ñuy noy yenn noy wala nga xam ne suñu sonne coono rek lay bañ soo amee reen yi moom itam baxal ko di ko naan suba ak bëccëg ak ngoon moom itam suñu borom mën na koy saafara war ko tawfeex bu baax ba ci saan sax bu dee ñi nga xam ne dañu am saan ba meeree xooj ko rek wala ma waxal ko itam di naan yàlla mën na ko defal tawfeex ba saan yëpp mu tàggaloo ba tey loolu baax na lool ci wàllu moom renam yi xob yi ñu waxoon fekk ren yi ba tey baax na lool ci wàllu wéré di xel ñi nga xam ne dañu am seen wéré di ci wàllu xel suba nag reenu ngeer lay am ak reenu daqaar ak ngeer ak reenu daqaar ak reenu nekk maam càpp maam càpp ko di ko naan ci ñetti litre ndox bàyyi ko mu seg mu set di ko naan saa yu lekkee mu naan ci kaas ba ci suba ngoon loolu su koy jëfandikoo su ma mën na ko defal tawfiq ba waa loolu di xel yooyu lu ko ci gën moom bëriwul yàlla mën saafara ba dëñ wala sax dootu ko sunlaat yu bëree bëri loo xam ne daal ay njëriñam la yoo xam ne euh, xamee su ko bu dee waneen ñi nga xam ne dañoo am waneen ba ñuy waneentu ñooñu reen ba ngay waaw waaw nag reen bu tooy bi ngay xooj dem gas ko wuti ko reen bu tooy nga xooj ko di ko sël moom baax na lool ci wàllu bët yuy métti nga seen bët yi day métti te xamuñ sabab bi lu mën doon soo amee ren bi xooj ko ren bu tooy bi xooj ko di ko sëlmo baax na ci loolu baax na looli ci ñi nga xam ne tey seen soxna yi nga xam ne seen baax yooyu jaarul yoon itam ba tey reen bi suñ ko xoojee di ko jëfandikoo yàlla mën naa saafara lool reen boobu it ba baax na lool ci wàllu biiru tañ ma waxoon ci xob yi ak biiru buy ndaw wala saan tam boo ci amee ñetti reen baxal ko di ko naan wala nga xooj ko di ko naan yooyu yëpp suñu borom saafara ba ci ñi nga xam ne sax góor yi nga xam ne dañuy sëy te ndox mi war a génn du génn maanaam bariwul day am ñoo xam ne dañuy jafe ci ñoom te loolu day indi jafe-jafe yu bari yu muy def loolu su amee xob yi ak ren boole ko baxal ko mooy di ko naan loolu yàlla mën na ko defal tawfeex ba manqué boobu nga xam ne amoon na ko ci wàllu ndox ma mu war a génn yàlla mën na ko ci defal tawfeex ba loolu yëpp it ba ci ñi nga xam ne am dañoo waxu waxu seen waxu yu mel mooy seen poudre yi mel ne angime xob yi ngay boole ko xobi limon boobu moom xobi yi ngay boole ko xobi limon baxal ko di ko naan soo ko lu ci baxal lool da koy saafara nga xam ne tawat la ñu ñi ragal da ko tudde yu bare bari nga xam ne surtout jigéen ñi soxna yi bu leen laalee moom yaakaar nañ ne yu ne ngay dégg ñu tudd ko ci te fekk dara tawat kese lay doon li ci gën a bëri nag moo tax li tax ñu ragal ko it dañ koy yar ñu bëri loolu mën a leen dar ay ati at ñu di ko yar subaa nag day àgg foo xam ne subaa moom tax ñu di ko ragal waaye tawal la kom tawat yi rek subaa ko ci mën a yëg am xobu limon ak xobu ngeer yi baaxal ko di ko mu ci gën a gaaw yëpp dindi suñu borom na ko saafara ba ki nga xam ne sax dafa amul kàttan ci wàllu sëy néew doole ci wàllu kër gi itam su boobaa nag xobu ngeer la yam ak xobu mbar buuf xobu ak mbar buuf lay boole baxal ko loolu moom su fekkee ñëw doole gi cité ko def surtout cité jàngoro cité yu bare bare lay def ci wet googu su néew doole googu nag ci jàngoro cité la jóge moom xobi ngeer yooyu ak xobi mbar boobu yooyu am lu yem ndax mbar boobu dafa xaw ko defee baxal ko léegi di ko naan kaas wala diggi kaas saa kaas kooku moom lu baax la lool ci wàllu siti boobu ma tax koo xam ne loolu da ko dal ba tax na wàllu këram ñëw doole ci wàllu kër dal ko su koy jëfandikoo suñu borom mën na koy saafara ci lu gaaw a gaaw ba dañ wax naa ko bu dee asma it naa ko waaye bu dee asma mën naa am xoba ngeer ak xobu xottu bëréel may falaawo xoba ngeer ak xobu xottu bëréel may boole moom bu dee mu coof ci nga ba loxoom rek boole ko baxal ko ci litre ndox segg ko léegi di ko naan saa yu lekk moom itam baax na lool ci wàllu asma boobu su koy jëfandikoo moom suñu borom mën na ko ci yenn coono yooyu moom ko ba ci socc waaw surtout socc si nga xam ne jamono ji lu baree bari bari na xob yi même mën na koo xooj noonu rek sax jël xob yi noonu rek du dara xoj ca ndox rek di ko naan waaw day saafara tàngooru yaram woowu yëpp ak socc soosu yëpp da koy ba tey su ko neexee ma baxal ko léegi di ko naan waaye su gën ma mburee soj bam na jël xoj rek xobi rek xoj ko noonu daf ci potam rek sotti ndox saa yu ma dañoo naan saa ma dañoo naan su ko defee ay fan rek loola mën naa tàggoog kon lii daal ak yu baree bari yoo xam ne kenn xamul nu toll waaye tënk la ci rek ndax déggoon naa sax fi Ahmad Daam ne boo demee ci foofee mu ne ci réewu tugal yooyu gis na siin waaye yaa ngi jaay te yaakaar na ne fii lañ ko jëlee sax di ko yóbbu ko foofu di ko jaay ndax ñoom xam nañ ci njëriñ yoo xam ne kenn xamut ay limam kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.